ma Ibson ne ma la balle est dans votre camp kon la bind si texte sax doyu ma waaw affaire bi moom neex na waa Tëngéej parce que Inzi mbégte la ngay dundee ñun ñëpp lii dafa neex quoi Inzi ubbi na mais gars dama leen ciy digal benn benn affaire quoi fair play dañ ne foog waa kon lii tijji na te ñun ñëpp nga bokk kenn bañ a yàqal kenn yëpp ñëpp la waa Tëngéej la neex na nag barki Serigne Touba ñëpp kontaan nañ waa di laata tamit sama combat Papa Yada numéro 2 ngay waxal nii moom nga jox sax kii bi waaw noonu la demee nag waaw di préparé sama combat ma Papa Boy Djiné dafa Tëngéej ñëpp wàccoo grand combat la waaw du caaxaan naa mais kontaan naa nag un question yi jaajëf. waaw Ilson TV mom, maa game, géem parce que day wane loo xamante ne nii xam nga waaw lu neex ñi ñi la daal barki Serigne Touba di lijjanti ay code di dugg suñu xëy di génn waaw kontaan nañ sa kaw sa kanam rek ndam rek tuy waaw jaajëf jaajëf ko Ilson ne ma la balle dans votre camp, on a bind ci texte sax